bismillahi rahmaani rahiim. asalaamu aleykum. ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara ñu ne tam nangul lanu leen yàlla nu yàlla boole nangul alhamdulilahi teeweeti nañu ko ren yàlla nañu ko teewe nega ni déwén daqal nu ren na mee ñaaw yàlla mel na képp ki fi ñëw ngir jëmmi yàlla ak muhammad yi moom guddeem ak cheikh ak cheikh sidil xaaji malik mi ko présidé ba àgg indi ko file ak cheikh al xalifa ak alxaaji Mansour ak sunu baay bii fi nekk ak sunu baay Habib ak ñi mu jaboote ñépp ku fi ñëw yal na yàlla faj sa aajo yal na yàlla faj sa aajo wante Sidi Alxaaji Malik warlu na fajug aajo gi ba tudd na nee na wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa fi taawimi in jaaxu sujuuni jeexul tàkk wa mawliduhu guddi guddi muhammad bihi nekk na ca sharafun tedd nga wa xiirun ak tànneef te kat fa in jaaxu sujooni aajo àdduna ak alaaxira fi taadimi mi ngi ci màggal juddi muhammad moo tax Seydi Haaji Maalik bëgg nu ñépp nu jariñu moo tax mu woonu ci bés bi ak guddi léegi nag guddi gi duma ci sori ci waxtaan wi ndax guddi gi mi ngi bëgg a dem ci guddi borom xanaa ñu barkeelu ci téere bi nga xam ni Cheikh Sidi Hadji Malick ni ko taalif daana wax ni ci sama làmmiñal bàyyi laa ko déggee mu ni man Malick xaw ma kañ laay man sama téere bi mas sañu jàng si maag sañu cheikh ma amee mii mi ya sharha Seydi Hadji Malick mii mi ak shuara u sitti bu Seydi Hadji Malick bind ñu ñëw nuyonteeg Cheikh Khalifa di war a jàng si mu ne ah, doom moo seen ñaari téere yii ba nay tegu ci kaw moroom mi mii mi Seydi Hadji Malick ko taalif shuara bi it moo ko bind ci loxol boppam moo doom téere yii ban mooy féete kaw ñu ni ko nun ah, de bu bu nu jot rek féetale sama morom kaw mu ne ah man de doom su ma ko man dama leen di dendale waaye duma féetale benn morom ak kaw waxu alaaji Maalik ak jëfam kon kii moo fonk yonent bi moo fonk Seydi Haaji Maalik kon nag ñu foofu rek barkeelu ci guddi na alhamdulillahi almawsuufi bilqidam almunimi bi jalaa'il naam لجميع الخلق والنسم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم المنزل بالقرآن العظيم بلسان عربي مبين تفضيلا وإنعاما حيث قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله ضلال مبين سبحانه من خالق منعم مخاطب لحبيبه المكرم بقوله المحترم ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم واسجد واقترب كرما صلي وسلم أرسله من حيث الشرك قد ملأ الأرض قطامه وعم البلاد ظلامه وخفقت في الخافقين أعلامه واستوت في قلوب الناس أوثانه وأصنامه وصارت الناس كالأنعام وارتفع ذكر الحلال والحرام واستوى في الضلال عالم القوم وجاهلهم ومفضولهم وفاضلهم ومرؤوسهم ورئيسهم وشريفهم وقسيسهم حشرهم الشيطان في شرك الشرك وأحصل في ذات غير مفك فبينما الأمر كذلك قد طبقت الأرض ظلمات الشرك wa galabat ala bid ayaami tawxid yu layali lxuluk rahima alxaqu alxalq rahima alxaqu alxalqa fa arsala ilayhim xabibahu alazam wa qalilahu alakram sayida waladi aadam wa safwata safwati min jami alaalam saaxiba alaxlaaq alsaniya walmujizat albaahira wal ayat alkarimat alshamila lilulwi wa sufli wa saamiti والناطق والساكن والمتحرك والمائع والجامد والسابق واللائق والغائب والحاضر والباطن والظاهر والعاجل والآجل أبا القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفه الحديث القدسي إني أبعثه رسولا وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة مقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته وأحمد اسمه فكيف لا وهو المتوحش دون البشر قانة الرب العلي الكبير المتكبر ولم يلهه شغل شاغل لا ولا خطر إلى عجيب صنع الله الذي أتقن كل شيء كما ذكر كما قد مشى في هذا المعنى سراج الوقات الذي يقتبس من نوره التام الحاضر والبات مغلق النوازل وكشاف غوامض المشاكل القدوة الإمام حامل ألوية الإسلام الذي لا يجارى ولا يباهى ولا يضاهى من سماه سما وذكره نما له اليد الطولى والغاية القصوى والملجو المأوى علامة الزمان الذي لا نظل في الأقران والمشعل بالبنان إن الذي عرف البيض والسنان الحاج مالك بن عثمان تابع لما رحم الرحمن بخلاص الذهب في سيد خير عرب بقوله من بعد طائن ولا من ثم ستة أشهر كل رآك في لا قسم لي سما سما بس سما يا loolu teg